quelques jours Dumo ñu naan ko Doudou Mbow ancien joueur euh, Niayes de Pikine et l'ASC Pikine bon parcours bi je me bi boo gisee euh, nekk lu dul euh, préparation nawetaan te pour man dafa am loo xam ne boo ko bëggee nga ay xale poto meew sax bu ñu ko tegee da koy jël wala da koy bëgg jël boobu nga jël pie luñ teg da koy jël. et bon parcours bi moom bon étape par étape la rek dama leen di wax chaque match at ñu koy demee chaque match at ñu koy joué match bu nekk at ñu ko ñu ko ñu ngi ko joué daal. bon di leen gën a ñaaxaat rek euh, di leen gën a ñaaxaat di leen fàttali nii ay xale lañ te xale euh, def lu muy def ci war a góorgóorlu parce que new c'est pas évident que ñu jël leen bàyyi seen morom. kon tey jii bu fekkee ne équipe bi dafa am ay euh, deux fois l'homme de match ça veut dire que équipe bi am ay qualité et ces qualités là dañ koy war a jël euh, aux dispositions di euh, ci équipe bi def ko ci mu nekk mu nekk loo xam ne day satisfait day day avantage équipe bi te boo ñu ngi koy def et j'espère que dinañ ko continuer aussi seulement ñuy gën a wàcc waat suñu bopp rek di gën a avancer ndànk naan at sérénité at aussi di wàcc suñu bopp daal waaw demi-finale bi bon am na lu kii taa parce que bi ñu ñëw aussi même les jours y' avait des gens yoo xam ne si tournoi bi lañ nekk ñu ngi naan ñu ñu ngi naan yéen di tey ngeen dee parce que équipe bii nii équipe bi naa mais bon li may xalee rek nee naa leen euh, mes jours dama leen wax ni nit ki nit ki nit ki li ëpp solo mooy il faut savoir conserver le ballon et puis yow sa jouer li nga xam ne moom nga mënee moom ngay jouer au début nag ñu doon wax na noonu da ngeen di ñëw da ngeen di déglu non amul déglu nit ki li nga xam ne mooy sa atu li nga mënee da nga koy def. et que noonu lañ noonu lañ préparé noonu laa préparé xale yi te heureusement ñoom la ñoom la dëgëruñ daal noonu ñoom noonu lañ ñëwee bon ça ça ça a fini par payer quoi wax dëgg yàlla bon ñu sant daal ñu ngi sant côté boobu. bon final moom euh, nan euh, ça se joue pas ça se gagne bon dans ce cas là euh, nekk na loo xam ne dañ koy préparé comme ni ñu koy préparé rek chaque match ni ma la waxee chaque match rek ak ñu koy joué. comme final la nag bon te ñun li ma wax yi nee naan carrément porte meew sax bu fekkee da ngaa bëgg jëm si dara bu bëggee jël dara porte meew sax bu ñu ko tegee da koy jël te man je suis prêt pour loolu te loolu laa leen tàggatee porte meew bi sax bu ñu ko tegee fii di ko xëccoo dañ koy jël te on est là pour ça final bi nag dañoo ñëw pour jël ko ñëwuñ nag pour aussi di xool adversaire wala non non non ñun li ñu moom ak li ñu mën la ñuy indaale parce que chaque match tamit loolu la ñu indi bu nekk aussi am nañu koy joué waaw te yaakaar naa yàlla dañu dimbali ñu dem teeg jàmm yàlla may suñu ndam bon li ma gën a jàngat mooy doomu dëkk bi yaroo si dëkk bi màggee si dëkk bi tekkee fi ça veut dire que rien impossible muy que que ça que soit moom muy xale yi te loolu day nekk loo xam ne tey jii euh, euh, ñàngat la ci xale yi ça veut dire que il faut ñu liggéey pour am dara dina tax aussi li mu def nii dina tax aussi que xale yi topp ñoom parce que man son frère la yàgg nañ xamante nañ bon maa ko mag si football bi mais son frère la et ku baax la daal. di ko ñaan aussi euh, fi mu nekk fi mu toll nii bon mu gën koo raw ba contrat yu gën a kawe di ko di ko fekk si mais aussi rafet na trop franchement parlé rafet na mu fekk si ay nijaayam ay frère am si benn tournoi boo xam ne ñoo ko organisé ça veut dire que Pikine c' est nous dans nous ñu ngi ko si sant aussi di ko ci gërëm di ko gën a encouragé aussi di ko xam ni football euh, lu lu lu jot rek yomb te ñu ngi koy ñaanal ëllëgu Sénégal mu tegu si loxoom te yàlla na ko yàlla. waaw mais nee nañ euh, ni ko tubaab yi waxee nee nañ équipe boo gis rek selon ni coach bi mel la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy demee kon dans ce cas loolu mooy tontu bi ko waaw. di sant di gërëm di sant aussi euh, ñi nga xam ne ñoo organisé tournoi bi vraiment c' était pas évident parce que lii rek boo xoolee mil euh, lii rek mérite la c' était pas aussi facile vraiment organiser nañ ko si professionnalisme bu rafet vraiment ñu ngi leen di encourager. di leen sant di leen gërëm aussi ah parce que seen xalaat nañ seen i doom que ñoom bi ñu tollee amuñu woon lii amuñu woon lii franchement parlé amuñu woon lii kon ñoom bu ñu demee ba def lii ça veut dire ñoom xalaat nañ tey seeni i frère xalaat nañ seen i doom dans ce laa dama leen di féliciter di leen gën a ñaax di leen ñaanal nag ñu seen projet yi mu gën a yaatu ba ñu am ay ba am centre de formation am ay hectares yoo xam ne dañ ci mën a euh, euh, lépp lu seen programme ñu réaliser ko daal ma laan di ñaanal